bis bu ñu euh, jàppoon sëtu yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam ray ko ca kon xanaa saa yu xare Badar ñëwee dañoo war a naqarlu wala xare beneen xare mm-hmm. xare yi nga xam dañ cee rey ay jullit ñu bëri xanaa kon dañ ko war a islam xamut deret xamutu askan xamulu islam a xam mm-hmm. mooy ku gën ragal yàlla te waxtu wu ne tër nañ ab jullit ray ko dañoo rey Xumar dañoo rey Usmaan dañoo rey Ali te ñun ñëpp amuñu benn bis bu ñu leen di kon kay sëtub yonente bi buñ ko reyee loolu ñoom dañoo def seen devoir mission bu ñu doon dox la matal ko dee. dañ doon jihaat dañ doon jihaat loolu du naqar yonente bi dafa doon wax ne képp koo xam ne dee na ci jihaat sa bànneex tàmbule na yaa ngi xàjjana léegi kay kon kay ku sa bànneex tàmbule lu ñu leen naqar loolu. kon waaye léegi nag man Sénégal est-ce que niñ koy feetee tamit. est-ce que waruñu ko gën a concentré ci ci aspect spirituel bi maanaam di ci jaamu yàlla ci istighfar ak yu mel noonu que pecc meeg tëgg yi góor ñu sol yëre yi jigéen jigéen ñu sol yëre góor xale yi ak yu mel noonu aspect folklorique boobu. loolu moom du diine suñu culture la rek diine nag nanguwul loolu diine moom bu toon tam du dara nanguwul góor guy sol yëre jigéen jigéen guy sol yëre góor di puudaru du fecc loolu diine mosu ko nangu muy tam xarit ak mu dul tam xarit a ci yam loolu moom taxul ñuy wax tam xarit waaye li tax ñuy waroon a jàpp ci tam xarit def ko suñu feet saa yu 31 décembre bu ñëwee ñun dañuy fàtte ne du suñu du suñu at. ñun tam xarit xamuñu ne sax suñu at mu bees la dañoo jàpp ne rek ab feet la buy am li li jënd xamuñ ñi koy def sax xalaatuñ ne am at mu bees la ndekete loolu li muy firndeel rek mooy tam xarit at mu bees la moo xam ne mooy atum jullit yi am nañ droit feetu ci. waaye nag ci feetu boo xam ne dafa dëppoog sarixa islamique am nañ droit julli ci ñaan ci suñ borom mu musal ñu ci balaa yi wàcce ci at mi comme ni ko sëñ Sonia bu jàngalee ak yeneen téere yu bari loolu jullit bi am na ci am na ci sañ-sañ pour def ko.